kookan la ñu ne moo du Gaynde borom kéemaan ak mën a faj ku fa ñëw rek sa aajo daal di faj mën ci hémorroïde ci ndoxum siti ci jabet ci góor gu tële wala góor goo xam ne da nga am jafe-jafe sëy ci tension ci asthme ci sinusite prostate ñoomi nerf sciatique ak yooyu nga xam ni moom moo jaaxal nit ñi muy dimbali jigéen ñi lool ci faru rab coro rab am na ay ñaan pour ku ba tukki ku bëgg place wala sax koo xam ne dañ laa liggéey am na tamit ay jaaro yoo xam ne jaaru kéemtaan la ko xale yi wax nga xam ne boo ko takkee cat du la topp bëri bayre boo ko takkee da ngay bëri wërsëg waykat boobu ñuy wax sax moomu la takk am na jaaro boo xam ni wàllu kaaraange la am na jaaro boo xam ni cat du la topp am na sax jaaro boo xam ni dalay aar ci ay accident ak yeneen ak yeneen kookoy sëriñ bu mag bi mooy sëriñu ñëpp moom la ñëpp wóolu yéen annonceurs yi Kémane Vision moom leen di invité ngeen ñëw ci Kémane Vision bu def leen ay xiwal ngeen am ci moom ay prix yoo xam ne du ngeen ko gis fenn ci Kémane Vision rek yéen annonceurs yi yéen ñiy jaay wala bëgg ko fésal seen produit acca Kéemaan Vision pare na pour defal leen ko ci njëg bu mu gën a gën a gën a gën a wooyofee maanaam mu gën a ciidee mu gën a wooyofee mu gën a tampe bi taxee ñëw leen saane xam locataire yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg ngaayoo bi ci biir kër gi lay xee jàllo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñaan ku faransé la wallaay ma jigeena mana mën way nit ki dina la bañ ca dula buñ ko laaje li tax mu bañ la dula ko wax mu ne kula la mbolo bolo wax mu dugg ci bayyi ko rabbana te ya xamni besam dina ñew lay mo yow tekki wo dara bu ni ma way way yow bu ni ma way bu ni ma way way yow lebu mën nga ni bamay toxu ñew ni lam ñoo genn wa waaw kebalik, tua la Mana kade? dégg ba lég togal ba naka dé ma ngi ni ba am si jamm yow li ngay xol lan la ngi si jamm ah sante yalla sante yalla bu baax sante yalla bu baax baax baax baax na nga def ak coono dekk si rek ba billah dekk si de ba ah! yow di guute gi nga dugg man jaaxal na ma ah doy na waar de. yaa ngi def ay ñaan. fa nekk dem na ma fa nekk daal dugg na. ya gaal yëpp toj suux ci ndox mi. fil à tourner yëpp dem. yeneen marin yi teg nañ loxo mënatuma kaa jot ndax li ma amel si bank bi ndax bare ñu toll nii nag sonn na ma lool. sonn nga sonn nga ah way sonn nga. moo tax nag mu demee noonu ma toog xalaat ma ne daal ga fële. na ma jéem a xool na ma fa sàkkee pexe bu dee sama xel ci li mu dem la ngay nga xalaat bu ko def de voilà da nga koy jaay oh daal daal la déglu nag tàmbaleeti naa déglu déglu rek ba ma expliqué la ba pare fi mu toll nii daal nga xoolal ko teg mam xel am na si la mu dem hmm. ndax kër ga yaatu na yaatu gaa xam ne hmm. la ne xaj na fa xanaa nga dagg ko jaay doo bàyyi waay jaay jaayuma man li ma am nii ba ma jaayee torax bi lii la ma dese mais dagg ko du ma ko dagga du ma jaay dog lul ba xam fa ma jëm waay kër gu toll ni stade dagg ko jaay catu naal maa catoo catoo catu ba ma dese lii rek xanaa aussi sa xol bi tàng naa tàng tàng tàng tàng boo looloon mu jeex mu dem kër ga am na la ma fa jot a xalaat loo fa xalaat waa daal lii ma fa xalaat moo la hmm. ginnaaw yaatu na hmm. ma nama hol nama fuk djima def tol luyee ke def kap tol tol wa ila bay man nama ma bay ay najo, ay carotte ahay ki dom, wow, waaw waaw ah yooyu sonn nga marché bi ba xamni yoy dina dox dina fa dox lay ma wax dekk ndoy fofu yeb bi ma ñu nene dina fa dox ba tax na mujj na maa sax bobu ne si wet gi Abdou mom hmm. suba la wara toj sa bi bi nga dekk yow fooy dëkk boo tojee néeg ba nii dama laa expliqué de pareegu ma de waaw boo tojee néeg fooy dëkk si la ma nekk moom la ma laa expliqué pareegu léegi moom suba la war a toj see néeg bi na ma bagage yi ba rangé lépp on dem na waaw dem na dem na léegi moom kay bi in demee ñaari fana si tegu mu dellu si yaay léegi nag ma ne woon daal ginnaaw ba man aw yàgg na wax dëgg yàlla na taxawul na ma la nag fane mm-hmm. taxawul na ma la guddi taxawul na ma la bëccëg mm-hmm. kon nag fa ma sonnee euh, jamono daal dab ma mm-hmm. waa maam xel si aw rek la war a mën a dem daal hmm, si ni ma xalaate ma ne comme kër gi gis na ma ne wax dëgg yàlla yaatu na ma ne daal na ma dem si ma waay dëkk si ak wetam nekk ak moom ana tàndaan en attendant ma xool ba xam ndax fële daal tool ba hmm. dina dox ndax moo gën a rafet ma la luye hmm. la wër la seet ay néegi luyaas ak yooyu hmm. ma ne woon daal na ma ñëw rek wax la daal na ma dëkkee si aw daal en attendant dëgg la dëgg la dëgg la xam nga bés boo gis bés lay xaar ah. te yàlla yàlla yi léegi ji xaaratul bés penc li ngay def rek li nga séq ak sa mi doomi adama du xaar ak déeg de ngeen déeg yooyu ñuy xaar déedéet moom day tranché léegi rek wan la ko tout de suite moom. Votre série revient après la pub. Kër ou bien na leen beneen espace bu bees bu janoo ak complexe Kër la brioche Kër boulangerie pizzeria gelato glacier pâtisserie Saloum Chicken ak a salon Saloum Chicken laa la wax de à la brioche Kër Bien di ngeen fa fekk ay misu mburu yu baax loolu lañ baguette mburu yu baax wala bu dee bëgg nga pain de mie daa pain de mie moom dañ cee pain de chasse naka noonu brioche wala viennoiserie salée comme sucré ay croissant au beurre. Hmm. Aïe croissant au chocolat. Hmm. Aïe cake. Hmm nature wala cake chocolat mmm hum, wala cake Nutella mmm mat leen yu baax yaa ngi pour seen anniversaire nak denk leen ñu seen bopp bah, bàyyi leen ñu defal leen anniversaire bu baax gâteau anniversaire bo xamni ni ngi jugee à la brioche Kër notre large gamme de gâteau unique ak Kaolack Ben la fi venez savourer nos pizzas Wow wow, sunny pizza Ben la fi tamit de Saloum chicken ñam ñam ñam dafa croustillant te neex am nañu ay glace yo xamni machallah parfois bu la gën neex sa morom nga bi brioche Kër deuxième rond-point Medina bay janoo à complexe keur Baye mën nga ñu woo ci 77 191 74 74 yow sa anniversaire neex na ba pare boo wootee foofu wala nga am xew rek woo ñu ñu defaral la yu baax livré la sa kër 77 433 69 12. doon maa génne may tambal mbalu sama xel mi demul ci kenn ku dul ci yow ma ñëw ci yow. man sax damay direct waye yow dang ma dang ma dig ba ma ŋaang nga mbas ma fi. ngay gis ni nak muumu ma fi pour foot be fa si mom kay di nga jombi mo fi mom de jital ma man ak Fat Samb abal ko Fat Samb in jàll dalina toñ rek jàll xam ni mom moom mom fi de nga bëgg ko moko mom nga bañ ko moko mom billahi fi may wax ak yow ni ñun fay ñu location du ñu fay ndékki du ñu fay añ du ñu fay reer jallu nak mo jël fat chambre nak fim mu toll nii jàllo man moo doxal waaw di ko di ñu yor ñu ñun ñep naga man mi ma dem ba yërëm la sonu nga man mi nga xamni dama doon wax yalla lan la ko def man mi sonu ba pap Ndiaye ak Air Force One woma nima yegg nañu sa coono gi papa Ndiaye ca Paris ak jabaram el Force wan ñoma wo woo ni ma yëg nga yëg nañu ni nga xoxé ni nga sonné ñoma duggalal sax temps yi ma xawal lim linxeeku neeg bi ma yor man la ma gay jaak ak dukkure ñetti punkal ñetti magget sax ci ne de nga li ma la wax benen neeg bi jubo juboo woog moom mënumbe ah ñànku ñëw feelu leen am na nag pantere bu mu ñu diggoon ni daf ñu koy jox joxaguñu ko. ana pantere mi ngi fi kenn nekk mais as pantere la foofu boo duggee yow sa yeel yu gudd yi maa ngi yow a yem euh, genn wàll géey nekk ci biir eh, sa tëstan yi dañuy nekk ci biti. waaw na ndax naa ngay lemu rek. baax na léegi na dem dinaa ci waxtaan ak Fatou Samb dinaa la contacter waat. Samb. Hmm. donc ndax am la ma laa fàttali tuuti rek. dinaa la taxawu de waaw waaw waaw waaw xam na ma lool. waaye ndax am la ma laa fàttali tuuti rek la fi jotoon a jaar. waaw mu la. Mm. ameloon naa ma fi ay koppar. ah déedéet déedéet taxawal rek taxawal rek taxawal rek taxawal rek. taxawal rek waaw après waaw. après uwa. waaw. u ma ndaam. ma foofu. ba ma may la loolu noonu. après ou dem tabaski ji ba pare ou ñëwaat. waaw u lebat ma 60 ñaata 10000 mille. waaw ba légui ni mu ngi ci aw. dugal nga ko ci dugal nga ko ci Fatou chambre dugal nga ko ci Fatou chambre wante man Fatou Samb jotuñoo jotuñoo kii dara. Ah, loterie la won loterie la won loterie la won da nga loterie rek da nga loterie. da nga ni ma waya présenté ma rek li ci dess ma koy monter le présenté na la nga ñak géyoo bo amé fofu fofu nil la wa man dal dama bëgg dal fofu nil la ndax ma jëli bagage yi ñëw wala. xool na ma daal xool na ma daal jàngaat na ma affaire yi xool lépp mais daal. waaw dama kaa mujjee bàyyi. kooka. bàyyi. pour daal ñëw si kër gi. dama kaa mujjee bàyyi daal pour. bàyyi lan moomu ñu xool ba jamono yi si kanam tuuti. ma xool nan la ma waxtaanaatee mam xel. Ah! pour u ñëw di jaay seetaatal li nga wax kat. aw loolu ñaaw na de yow sa diggante kii na mu mel si digg dëkk bii man loolu du ma ko seetaan barki Seex Tijaan loolu du ma ko seetaan yaa ngi dëkk ay bagage ba léegi dootu ma ñëw déedéet da ay eh, déglu déglu déglu da ngay ñëw taxawal ndijaay tag ko déedéet déedéet mën a mën a tulaale wóyul nday wóyul aw la xew aw ndijaay yow la xew kii sa kóllëre la xalal ko mu ñëw dëkkal nga toog ba mu dagg bagage nga la bëgg tas yaakaar waaw ndijaay loolu du ma si ànd tey du ma si ànd ak ëllëg ndijaay ba ma mayu rii cee àddina ah. ay àddina tey nag laa gëm ne àddina mbaxalu xeer la njëkk a sóor taxut a njëkk a ñor le àdduna de bët bu set ak kiyaaye hmm, ngan da ngay jëli daal pour bagage yi ya. teggi nay ardoise yi tey suba teggi nay ardoise yi ma gis naa man mii maa la gën a kii de maa la gën a sonn foofu man fi mu toll nii ba jooyee man nan la ma de teggi na ardoise yi teggi na kade fi mu toll nii ba ma loon tëdd ba tawee si ma kaw laa. dara ñàkk ni amatoo dara. barka Cheikh Bilaay fekk nag ab liggéey la de ab liggéey la lii de ma dem jëli bagage yi ñëw wal bul ñëwagum bul ñëwagum demal demal bul ñëwagum baal ma réglé ko baal ma réglé ko bul ñëw de. suba de léegi kaa toj suba suba léegi a toj kër gi de. danaa la jooy fi mu toll nii bàyyi bàyyi jooy ma la ma la jooy. ka jooy daa mën a naa ka la jooy. aw kër aw la seetal kay solution ma am naka la den daaw toog fii wala jooy. xam naa adduna gudd tànk rek. nee na adduna moom adduna gudd na tànk ak dëgg la waaye ba mu ñëwee daaw retrouver solution ne ma kaay. ut dëkk fii wala maa ngi jéem ah, maa si mu toll nii sonn na ma trop maa ngi nii. Ah, xaaral ma gunge la. Ah, maa kaay ñu ne fi mu maa ngi nii la yàlla am de mën naa waa gunge ba pare nekk ne bu amatul dara. su ma dara ma kurus gi rek ma yor fi mu toll am na sa paas ma yóbbu ma te boo ko fi fekkoon ma jox la ko paas dong jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama kenn demul